sëñ Abdou Karim Mbacké beneen gis-gis bi alors Vladimir Poutine président Russie ci tënk daal nee na sommet bi amoon diggante Russie ak Afrique bëgg na ci juróomi at yi ñu ful ba ñaar euh, échange yi nga xam ne ci wàllu euh, jënd ak jaay mi ngi am ci diggante Russie ak dëkk Afrique yi mais Pape Djibril ma xaw a tooñaale tuuti bu ñu jógee ci Russie Afrique Inde Afrique États-Unis Afrique ak lu nekk am na xanaa Monaco Afrique la ñuy mujjee. mais abordé nañ ko mais abordé nañ ko démb ci sunu mm-hmm. émission c'est-à-dire que aujourd'hui Afrique Afrique ñoo war a am taxawaay boo xamante ni tey ci Union africaine. Mm-hmm. war na ñuy mën di dalal nag. ñii nga xamante ni am na yéene ci Afrique. Mm-hmm. mais ñu woo leen nii. ah ñoom ñëpp dajale leen fenn. Euh, malheureusement qui paye commande. mais tey jii Russie ci boppam moo am ay ay ay. <laughs> ah ah je t'aime bien toi tu es mm. bon quoi. mais c'est c'est la réciprocité ah, réciprocité. <laughs> mais li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a mooy il faut que Afrique nag jël destin en main. te loolu xam nga fan lay commencer. ci ñu commencé nag di ñoom ku ci soxla parce que ñoom ñëpp matière première yi rek moo leen yëkkati. Mm-hmm. matière première yi ñu am fi mu ne nii loolu rek moo leen yëkkati. te egg nañ fi dañu bëgg diplomatie dañu bëgg ay base aérienne lépp la ñu bëgg <coughs> pour man dañu taxawaat rek pour séddoowaat Afrique malheureusement alors ñu delluwaat ci jóg waaw man de dama ne nous sommes un état souverain avec ses intérêts fépp fu mu gis ne njëriñu askan wi ma nga fa mën naa wax ak ñoom ba ci nag ay frères africains parce que loolu tamit dañ koy faral di fàtte. ñun suñu biir yeneen pays africains yi war na ñoo mën a kenn ku ci ne am na potentiel war nañoo mën a xool naka lañ koy boole pour mën a jëmale yëf yi kanam. papis nag état dafa bokk ci rêve Poutine xam nga dans sa tête dans les réalités pour mu ko jàppee c'est une de concurrencer exactement les grandes puissances du monde. Mhm. c'est-à-dire États-Unis. Union européenne euh, Union européenne Chine. Union européenne ñoom dañoo am problème mu déggoo ñoom seen seen problème Poutine il est dans cette logique. Mhm. pour coloniser Afrique et li Pape Younou moom c'est ça qui est triste en fait xoolal tout le monde s'organise. organise son avenir mhm. par rapport au potentiel de l'Afrique mhm. et l'Afrique ne s'organise pas pour son propre avenir booba ñun daal wuyu jërëjëf ah, mais xam nga xam nga Poutine dafa graaw je pense que je pense que woo bi mu woo Afrique buñ ko buñ ko bàyyee rek si mbirum koom-koom dañuy nax suñu bopp Poutine am na ay message yu yu fort il connaît la relation bi am entre Afrique ak États-Unis fu mu nekk nii vraiment. Mm. xam na ko de. il n'est pas il n'est pas fou. je pense que am loolu am na ci part bu rëy le fait que mu dugg ci plat bi xam na Trump et l'Afrique ça marche pas trop. Mm. donc je pense que. <laughs> voilà stratégiquement. <laughs> stratégiquement euh, dafa dafa am solo mais am na benn sortie bu mu defoon. Mm. bu ma lire je pense que moom moo ko wax. que euh, bés bu France. Mm-hmm. teggee loxoom ci. emprise bu mu am ci ci Afrique France day daanu. c'est lui qui l'a dit. c'est lui qui l'a dit. Ah, donc moom non bu nit waxee loolu. léegi muy dem vers l'Afrique j'espère que ni France amee emprise ci suñu dëkk yi moom du ko amee emprise noonu en tout cas il sera beaucoup plus waaw non non dama ne dama ne en tout cas li ma xam ba xam non non dama ne weesu weesu France moom non mais weesu France ci Afrique bii nii si non <laughs> weesu France ci Afrique bii moom non de yow euh, ma ne weesu France ci suñu zone bi raw ko moom dana jafe loolu dama ne comme moom moo doon critiquer France tamit ñuy woo peut-être ce qu'il va proposer moom mooy gën bu France mais Poutine moom fu mu teg tànkam rek xamal ni am na ku muy xeexal keneen ku dul ku dul ku dul alors non mais coopération diggante Russie ak Sénégal yàgg na parce que d'abord mm-hmm. c'est une coopération d'abord idéologique parce que toute l'idéologie politique yi nga xamante ne les partis de gauche yi nekk Sénégal dem nañ ñoom Amath ko dem nañ Russie gars yu bëri foofu lañ leen formé donc si on a aujourd'hui une masse critique forte am une certaine idéologie politique lu bëri Russie lañ ko roote te yàgg na ñëw aussi d'un point de vue idéologique au chevet les pays africains loolu ñu ngi fàttaliku ay ñoom lu Lumumba fi ñu leen formé donc li ci ëpp solo moom mooy nous devons avoir des chefs d'État qui milite pour des coopérations équitables parce que coopération quand même ñëpp soxla nañ ko mais de manière stratégique soxla nañ coopération équitable Charles Спасибо, товарищ Путин. Я думаю, что Африка можно индепенденс. Спасибо, спасибо, Шар. Очень хорошо. Товарищ. man Добрый день, non Добрый день, Шар. Шар, xam nga sa bopp rek ngay wax. Maram Mbacke. pour nga xam loolu. parce que xam nga gën a métti. ñun dañuy dem bi ngay am pour trouver benn Sénégal buy laaj. tavariche mooy c'est tellement minime sa bopp rek ngay wax ñagas na russe. alors ñu déglu madame madame Mbacke ci ci ci li. bi. mun na mun na fructueuse mm-hmm. parce que Afrique mooy njagamaar bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg bu xamee mm-hmm. boppam mm-hmm. day jar lu bari moom la ñëpp bëgg të te contrairement à ce que les gens pensent Russie a beaucoup de points communs avec l'Afrique d'abord c'était la fédération russe avec les pays Euh, Moldave. Mhm, mhm. la Tchécoslovaquie Yougoslavie. Mhm, la Serbie et de l'Est les pays de l'Est ont beaucoup de traits communs avec l'Afrique. effectivement dont la pauvreté et l'ingéniosité. coopération bi mën nañoo teggi l'emprise de la France. donc allez gis-gis gis-gis bu mujj bi.